عن خير كمال عمل وراء نيل فضل المسرين اللوى والفضل عند الرسول الله خرال daw jël na waa kulal waraaru def leen nu magal Muhammadu Rasulullah jaaraama maam Cheikh Anta Mbakke yaa gëm yaa taaru yaa tabe te yaa njëkk fab sa seenu askan jëmal Serigne Touba jëmal Serigne Touba Mbakke Serigne Afia maami Serigne Jili Mbakke def na ni nu màggal Serigne Jili Mbakke Serigne Jili Mbakke ibnu Cheikh Abdou Aziz mbarum Serigne Touba mbarum Serigne Touba mbarum Serigne Touba mbarum Serigne Touba mane su ko daan ma ngay takkay ndombam ci pey diwaan mam Anta Njaay wàcc nga am nga yaaram jur ilimaan yow gàlliw leen ci maaram ma maam Cheikh Anta yaaram la Cheikh Afia maami Serigne Jili Mbacke Ilimani Njaareem def leen nii nu magal Cheikh Afia bismillah ndongoy do Senjili, Senjili daal di tàmbali cérémonie officielle bi kon imaam bismillah tafadal maskura alhamdulillahi alladi haddaana li hada wa ma kunna linactadiya lawla an hadana allah wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa nabiyina wa muhammadin salawatullahi wa salaamu alayhi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nangu leen ma suma nuyoo noo ngi nuyu bokki jullit yi fi daje way dëkk yi ak way dëkk yi noo ngi leen di siyaara noo ngi leen di balu àq ci jataay bi waaye sant yàlla bi nga xamee ne borom bi subhaanahu wa taala wërsëgal nanu jataay yu demee nii te it jataay yu demee nii nit di ci yokkoo ci duniyaan wa uxra kon ñu ngi koy sante borom bi subhaanahu wa taala di nuyu kilifa yi fi teew rawate kilifa diine gi nga xam ne ñu ngi ko doon xaarandi mu nekk kilifa goo xam ne macha allahu ku yàlla baaxal la ku yaatu ginnaaw la ku yaatu xol la yàlla dogal na maak seen jiiri ànd nañ dem ba këram jamono bi nga xamee ne mu ngi Eh, jàpp bis bii baarakallaa ñu ngi koy nuyu di ko jox wàcc waayam di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci kanam njoboot gi yàlla yàggal ko ci kanam taalibe yi yàlla na ko yàlla def <coughs> di nuyut it tabaarakallaahu yi nga xam ne yàlla dogal na ñu teew si fi waaye ci autorité yooyu mu mel ni tey ñaari autorité ñu ngi fi teew yoo xam ne ñoo seq gox bi eh, muy taala Gajaga ak kii nga xam ne mooy wa tabaarakal Gajaga maire di Malika ak kii nga xam ne mooy Moustapha maire Kër Massar mu mel ni tey <coughs> bu fekkee dañu seet ni nga xam ne mooy seen jataay monsieur eh, Mbeng moo am gan gan gi mooy taala Gajaga mi nga xam ne yàlla dogal na tey ñëw na ci goo xam waaye it nag taale it mel ni fii goo xam la ndaxit dëkkam la kon ñu ngi koy nuyu di ko tatagal di ko wax bismillah di ko waxe nag ñu ngi koy sant di ko gërëm ci jataay bii nga xam ne moom la ñëw bokk ko ak nun di wax Moustapha ne ko moom it ñu ngi koy wax bismillah ngir li nga xam ne jox nanu kàddu gi ci wàll bii nga xam ne moom lañ fi féete di ko dalal fa tabaarakallaahu waaye di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla gën koy jàppale ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla jàppale shaahiran wa baatinan euh, démb am na benn mbokkam bu ko wax ne ko ku xamoon li ci meer wallaahi diis gi mu diis weesu na app ndax nag dafay mel ni yow daal <clears throat> da ñëw wara defal ñëpp te yow kenn waru laa defal waaw loolu mooy mbiram maire lu diis la waaye fekk nag ñoom ñu ngi dox loo xam ne ci gox bi waa wax dëgg yàlla gox ñi nga xam ne ñoom lañ koy doxal sax mën nañ mën na am xamuñu ko xanaa day sotti rek ñu xam soog a xam wala sax da mën na sotti sax te am ñu bëri ñoo xam ne duñu ko xam fekk ñoom seen jëf seen wax moo fa jaar borom tuuba lii rek moom la bëgg ci képp koo xam ne kii yaa nekk taalibeem wala rawatina nga nekk deretam kon sëriñ ji lii mu taxawee lu mu war a taxawee la waaye nag nit ki su fekkee def na la ko war war na nag nit ñi sant ko gërëm ko kon tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di ko jox wàcci waayam tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal ko kon ñu def fatiha benn falaqe ak naasi tëjee ko salaatu ala bii bu waaye di jëfandikoo. yéene jataay bi yàlla barkeelal nañu ko ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu ñëw tabaarakallaahu képp ku fi ñëw rek yàlla faj sa aajo amin ya rabbal alamin maxtaar jóg moom it mu yëkkati ay kàddu kon jaraaf bismillah waxuma la cër bi ñu jox ñu war a bokk ci jàng guddi gi lu rafet rek dañuy woo ngir ñu gën ko rafetal ndax jëmm ji taxaw day nit ku baax koo xam ni ko xam teraanga nii di jëmm joo xam ni ku am jom la li ma ci gën a neexit mooy nangoo liggéey nit ku baax a nii te keroog bi ñu demee nuy ko ndekete yow mbokk feeñ ci diggante bi. asalaamualeykum mbooloo mi sëñ Jili jërëjëf lii nag dafa ma xaw a bett lool ndax damaa waroon nu ñëw rekk toog. ndax nag fekk naa fi ñaar ñi nga xame ne war naa leen fee fekk muy meeru Malika di Talla ak député maire Moustapha Mbeng di maire Kër Massar di suma maire sëñ Jili jërëjëf sëñ Maamun jërëjëf démb maa ngi fanaan si cantak sëriñ Aydara Mbàkke fële sa yëmbal deux heures du matin laa fa jógee keroog bi nga ñëwee dama na la lu ma jàppoon dinaa ko bàyyi ndax kóllëre lii nag lu jafe la organise fii yor ay xale yu ndaw di leen jàngal ba ñu man lii ñu man tey lu jafe la man de mënuma ko kon ko def lu baax nañ ko wax ànd nag ba ca gën kuy ànd na nga ànd ak say mbokk ku la gis nii nga tooge ak ñi la war xam ne ànd nga ak say mbokk yàlla na fi yàlla def jàmm réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm kii jiite réew mi yàlla na ko yàlla defal jàmm dama wax ne Serigne Touba Xaadimu sol lim fi def kenn dootu ko laajte ndax jàng nañ ko xam nañu ko tey li ñu war a def mooy ñu xam kan mooy sëñ Jiile ak kan mooy sëñ Maamun dëgg la ndax ñun dafa teje ñu dool ñu ñu yéen jamono kon li fi sëñ Touba bàyyi ak ñin fi bàyyi war nañoo xam ñoo ñooy ñan ak fu ñu nekk ci dox bi ñu fekk leen fa looloo waral autorité yi ci kaw toog nii te nag man de sama indépendance maa ko ku ma reggalul mënoo maa regle man sa njili maa ngi lay sant di la gërëm ci dalal bi ñu dalal fii yàlla na nga sut sa maam aw fan jërëjëf Mbacke loo organisé te man jaraaf naa ko yëg maire bu man la dem ma ñëwal ko man jërëjëf ndax xam naa jotam te laajuma kenn paas laajuma kenn paase allahumma salli ala sayyidina muhammad masalam jërëjëf jaraaf li nga wax nag mooy waxi responsabilité dëgg ku jël engagement sëriñ ji loo xewleeti nag ma ko wax su meer munta ñëw am naa paas am naa paase jërëjëf yàlla na nga yàgg wuy si sëriñ bi yàgg fee fekk sëriñ bi ci barkeb naa Ahmadul Xadim barkeb sëriñ Afia dañuy jàll ci Talla Gajaga meeru Malika muy ku baax di ko yaatal di koo xamante ne si lu sëriñ bi musa woote teew na fi moom maire la waaye da cee di dongam daara <laughs> te man nag sëñ Abdou Lahad nii ngay gis àdduna dongam daara ma ci gën a neex ndax man ba ma juddoo ba tey daara laa xam sëñ Talla jërëjëf niñ ko waxee woon suñ kilifa gi noppi rek yow it ñoo ngi lay ñaanal suñ borom gën a guddal aw fan sëñ Abdou Lahad 85 maa ngi Malika jóge fi dem daara rek laa def kon xam naa ci moom lu bari waxuma la moom waaye suñu maam ji nga xam mooy waay juróom sax mën naa wax ci moom lu bari kon ba noppi nag di dunde lislaam ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di sant Serigne tubaana bu baax a baax di nuyu sëñ Modou Mamoun di ko ñaanal fan wu gudd ak wér di ñaanal tamit Serigne Jili sama xarit sama soppe xam nga lu tax Talla Gadiaga jug ma jug yàlla dafa dogal mu nekk maire Malika monsieur Moustapha Mbengue mi député maire jiite Kër Massar démb yàlla dogal ma toog ak sëñ jiili mu wax ma lu am solo ma bëgg nag li ma wax ñëpp bàyyi ci xel mu ni ma ni xam naa ni fii ñu toog ci territoire Kër Massar la bokk waaye 75 pour cent ñi fi dëkk boo xoolee seen quarante Malika ci nekk kon muy wane ni tey ci jataay bii intercommunalité Malika Kër Massar fii la war a doore kon war nañoo dépasser xëccoo Malika Kër nañu xool njariñu askan wi ñu koy def te loolu nag dañ ciy sant sëriñ Jili Mbàkke bu baax a baax dëmb ak sëriñ Jili mii ñu ñaanal gudd fan ak wér muy liggéey bu am solo kon nag ñun askan wi bu ñu nangooti kenn diñu jaxase fii Malika fii Kër Massar bu waa Malika indee njariñ nañ jël bu Kër Massar indee njariñ nañ jël lii laa moom la ma jeex di jégalu ñëpp nag jërë ngeen jëf aouzu billahi yaa man ala kulli shay'in xaadirun wala arshil azim istawa bi qahri yàlla inni sa'altuka xalban xaashi'an mutawaadi'an ilma kasiran nafi yàlla wa tawbatan xubilat ma mignatin rufiat ma zawjatin salwat bi diine yàlla asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ jii di mbégte mu rëy laa am pour ñëw teew fii sëñ Maodo Mamoun mbégte mu rëy laa am pour ñëw fekkee loo xam ni sëriñ Touba da ca laal ñun ñépp dañuy wara a fu ñu toll ñuy wax jërëjëf sëñ Touba man taalube bàyyi laa mais dama naan jërëjëf sëñ Touba. jërëjëf sëriñ Touba. ndaxte bari na loo xam ni su ma jullee di ko ñaan ci sama yokkute ak sama mucc ay bëyitam laay wax. nit nag bu ñëwee bay toolam def ci mandin ak orange ak pomme ak banaana ngay ñëw di lekk bu roose jotee rek war ngaa mën a ñëw roose ni sa bopp ngay rooseel euh, su ma nee nag jërëjëf sëñ Jili ku ñëw léegi ci sama taabal maa yaa ngi fay gis may bind benn plainte boo xam ni maa ngi ko adressé état bi di di di attirer attention ci suñu dëkk yi muy Kër Massar ak Malika ñoo xam ni xaalis rek moo leen di soxal ba biteeli sàngara yi nga xam ne xam nañu xale yi mënuñu koo am ñu koy natt ci ay mbuus di leen ko jaay ma ñëw fii ma gis xale yoo xam ni macha mucc nañ ci loolu. koo tax man la sëñ Jili jërëjëf ñi war a def nii bari na parce que sama classe gi nga xam ne dem nañu nag ba à la traité defe ni dañuy lekk seen pension ci jàmm su xale yi yarawul duñu am jàmm kon sëriñ Jili jërëjëf xat naa lool boo demee fa ñu wax Malika plage bu yàgg ba tey ñu may woo monsieur le yow la ñuy xaar jigéen ñi Malika plage ñooy def benn conférence tàkkusaanu Seydina Mohamed man leen may leen ma rek ma àgg ci sëñ jiili te ñëw bi ma fi ñëwee tim fekk naa fi jigéen ñi Malika yoo xam ne bokk naña bokk nañ te ña nga xam ñoo war a jiite lool ku ñuy wax Njawa Juuf a ngi fi conseillère aadama Juuf a ngi fi ak madame loo ak yeneen conseil yoo xam ne fekk nañ ma fi ma ni ko naa jël kàddu rekk lu mu néew néew ma wax ko sant te yeweeku duma yeweeku nag te sargaluma saafontewuma le maire de Kër Massar di Moustapha Mbeng le député maire bërki démb la ñu tase séminaire Mbour mais moom xam na ni maa ngi ci ay disposition toog ak moom waxtaan ki loo xam ni moom mënu koo def moom dong man mënuma ko mooy def dong mooy mbali dëmba ba si mi xam ne moo nekk ci suñu frontière kon intercommunalité bi taala doon wax léegi ñu koy wax interterritorialité lu war nañ cee waxtaan euh, Matar Diop dama bëgg xare yi saañu seeni nopp dañ daan def peppu neen di sëmb ci dex yi ñoo bokkoon benn classe ci Kër Massar Kër Massar laa juddoo fa laa yaroo ba mag door a ñibbi si sama kër baay Malika Matar moom xam na li may wax ñoo bokkoon benn classe kon dara amu fi lu nit mënula jubbanti dama dégg benn góor mu ni yàlla su ñu bëggoon a noppal daf ñuy bàyyi àjjana waaye nag fii ku fi nekk am ay problème boo gëmmee am ko boo xoolee am ko kon nañu xool suñuy problème bañ cee gaañu sottal ko maa ngi sant ñépp di nuyu imam Fodé Ndiaye di nuyu notable yi quartier bi yépp ni sëñ Jili ànd naa ak taala Diallo boo xam ne bi may ñëw mu mën a monsieur le maire lu mu xat-xat di nga dem ndax nga gisante ak sëñ si jiili sant ko ak Seydina isaa sàll bi ma xam ne wóor na ma ne tout le temps yéen a ngi waxante ci téléphone kon ñëw naa fi tànku taalube tànku mbokk tànku sàkku ñaan ci Sénégal ndaxte jàmm moom mooy lal lépp loo xam ni mooy jiital mooy jëmale réew kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa jërëjëf maire monsieur le maire Talla ga kàddu yi jërëjëf monsieur le maire Talla Gadiaga kàddu yi rafet na am na solo waaye man li ma frappé ci wax ji yépp mooy ñaari yëf rek mooy diggante Kër Massar ak Malika ak baytu xasaat yi nga xam si moom nga njëkk a tari ca mu nekk ci biir sindi ji jërëjëf ak wax ju réy ji nga xam si moom nga ko moom nga wax Serigne Touba mu wuy si la kon nag jërëjëfe Serigne Touba naa Ahmadul Xadim Serigne Basiiru Mbàkke teew na fi ibnu Serigne Abdou Latif mi ngi noonu ci kaw dend ak monsieur le maire Moustapha Mbengue soxna Nday Diop di way jur ci soxna ci Serigne Jiili moom it ànd na ak délégation bu mag teew ci bis bi ci biir délégation bi mu ànd ak soxna Xadi Jóob ñoom ñëpp ñoo ngi nii ci biir tànt bi ñëw wuy si sëriñ jiili ci bisam bii nga xamante ne si ci lay sant maamam ju tedd ja Seexuna Ahmadul Xaddiim sëriñ jiili sëriñ Moustapha bi mu fi ñëw daaw booba meerul Kër Massar rekk la woon waaye tey jii député maire la ndombal tànk loolu yàlla na yokk amiin amiin maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit Fallou Sène délégué de quartier bu baax a baax waaye nuyu tamit autorité yi nga xam ne ñoo fi nekk su ma ko waxee nag dama si jiital sama mag Talla ga di ko nuyu moom ak délégation bi mu àndal yépp di nuyu tamit autorité coutumière yi su ma ko waxee ma tudd jaraaf Aldo Matar Diop maa ngi koy nuyu waaye maa ngi nuyu mbokki sëñ jiiri yi ak xaritam yeeg am di jàmm yeek mbooleem ñi nga xam ne tey ñëw nañu teew ci bés bi waaye nuyu population bi yépp di dëggër rek euh, sama xarit li mu wax léegi euh, daaw ñëw naa fi ma fi ñëw daaw boobu maire la di wut député ma ne sëñ bi bëgg naa nga ñaanal ma ci sëñ bi ñaanal ma ci tey ma dellu si fi nekk député kon sëñ bi ñu ngi la ci sant bu baax di la gërëm di wax rek ne maire moom rôlam dama koy wax toujours ci tànt yi su ma demee ma ne lii daf ci bokk ndax maire dañ ko jox ay compétence compétence yi ñu ko transféré juróom-ñeenti compétence la compétence yooyu religion bi daf cee bokk ba dañuy am ay commission religieuse ci suñu biir mairie yi kon loolu li muy firndeel mooy lii tey maire moo ko war di organiser bu ñu toogoon lépp lu jëm ci diine kenn organiser wu ko maire bi moo war a def ay màggal moo war a def ay gàmm moo war a def ay conférence moo war a organiser ay jàng woo population bi ndax ci rôle bi ñu ko jox ci liggéeyam loolu def cee bokk kon nag soo amee ku mel ni seen jiir yi mu féete la ci wàll woowu di la ko defal dajale xale yi di def si ñoom xam-xam di leen jàngal di leen éduquer yow boo dee maire war nga xam ne kooku loolu muy def yow la koy defal ndax maire bu ne dangaa bëgg sa population nekk ci population bi gën te population bi dan lay gënee dudul ci nii rek jàngal leen yar leen ci diine yar leen ci siraatal mustaqim su boobaa ñu nekk ay nit yu neex a jiit waaye bu loolu amul ñu jafee jiit kon nag sëriñ Jili loolu dañ la ci sant bu baax di la wan na liggéey boobu ngay def ci commune bi ñun en tant que maire gis nañ ko yëg nañ ko kon ñu ngi lay sant bu baax ci loolu di jeexal rek si benn point boo xam ne laal nañ ko fii sànq di ko wax ci diggante Malika ak Kër Massar Malika ak Kër Massar jàmm rekk moo ci mën a am leneen mënu ci am ndax lu tax dañoo nekk ay dëkk yi nga xam ne ay dëkk cosaan lañu yàgg nit ñi dëkk fii ak ña dëkk fee nekk ay mbokk xëy na tey extension moo am rek Dakar di yokk tey ba dëkk yi toll nii Talla Gadiaga wax na ko léegi ci waxam Kër Massar la juddoo fa la defee lépp ay mbokkam nekk fa mu ñëw nekk Malika kon Malika Kër Massar ay mbokk lañ ay mbokk nag jàmm ak salaam rek la ñuy séq xëy na nag yàlla mooy def tey jii Sénégal euh, ñu am ay nguur am président de la République am ay constitution am ay réglement am ay loi réglementé li ñuy doxal yépp nga xam ne am lu ñuy tuddee découpage administratif ñu découper Sénégal def ko quatorze régions def ko ay département def ko ay communes génne ay décret lu ci nekk ñu ne fii la commencé fii la yem loolu ñun defuñu ko kon donc suñu faluwee ñëw décret bi ñu yilif wan ñu ne li nga jiite fii la yem ba fii la yem ñun loolu rek la ñuy respecté ñëwuñu pour def lu bees ñëwuñu pour créer dara mais li nga xam ne yoon moo ko def rek loolu la ñu reewal respecté te loolu la ñu respecté taala sama mag la ñu ngi daje di waxtaan ndax léegi doxalinu mairie yi dafa changé acte trois de la décentralisation lañ nekk acte trois de la décentralisation nag maire yi dañoo am seen autonomie ci seen gestion bi ñuy gérer seen territoire loolu moo tax wax na fi sànq li mu wax il faut commune yi di signe ay intercommunalité intercommunalité mooy lan léeg-léeg fa ñuy frontière ñu am fa ay intérêt wala ay projet yoo xam ne mënuñu ko def te duñ ci waxtaan joxe na exemple mbalit mi mbëbës bu dee ne mbëbës dafa am côté bu dugg Kër Massar am côté bu dugg Malick suñu fi bëggoon def ab usine di transformer mbalit moom wala pour dindi te ñu ne duñu waxtaan mënul sotti il faut ñu waxtaan bu ñuy def lépp la ñuy defarandoo moo tax ay intercommunalité mënul ñàkk moo tax loolu fu ñu dajee maak moom ñi ngi waxtaan pour xool nan la ñuy toogee pour intercommunalité entre Malika ak Kër masaar ñu def ko ci def boo xam ne day nekk ci bénéfice su Kër masaar nekk ci bénéfice su Malika te loolu yàlla dimbali na monsieur le maire man ci ñaari député yi ñu tànn président tànn leen ñu bokk ci commission bi nga xam ne mooy def dialogue des territoire man ci laa bokk man ak Jean Moïse ñooy lay député yi nga xam ne ñooy siéger ci dialogue des territoires boobu kon je crois que am na lu bëri loo xam ne suñ ko waxtaanee ba tënk ko su ma ko yóbboo foofu yaakaar naa ne mën na nekk loo xam ne dinañ ko valider mu mën a dox kon dinañ toog ci ay délai yu gàtt ñu jéem a waxtaan ci lu demee noonu fi may tëjee sama kàddu rek nag mooy ma wax ba jeexal ci jataay yu mel nii te duñu sàkku ñaan ndaxte ñaan xam nañ ne amul lu mu mënul te li may sàkku rek mooy eh, kilifa yi fi toog ngeen ñaanal ñu ndax nag jiite moom dafa métti yaakaar dafa métti eh, te bu la nit ñi yaakaaree pour nga fajal leen ak jamono ji ni mu demee eh, donc mérité nga ñu ñaanal la waaye ñaanal tamit suñu président de la république son excellence ki Sall ndax wax dëgg yàlla ñun suñu commune bi bëri na ay projet tey yoo xam ne ay projet yu rëy yoo xam ne ay milliards la te mi ngi ko jël dugal ko fi mu ngi jël tey projet andi ko fi première phase bi nekk treize milliards six cent millions mu war ko fi def pour canaliser Kër Massar gi ak banlieue bi pour que benn ndox dootul tawati mu fiy taa di fi lor population bi te travaux yi demare na ku dëgg si dëkk bi gis ko kon loolu nekkatul lu ñuy wax projet mais ci exécution la toll te bu pare dana am yu bëri yu mu àndal ndax bëri na fu daan taa ndox tey ba nit ñi ñu toxal leen danañ ko defar ay bassin maasale espace yooyu def ko ay espace public def ko ay aire de jeu def fa ay projet PIC pour population bi mu ànd ak éclairage public ànd ak ay ay pavage ci yoon yi nga xam ne ci la kano yi di jaar donc loolu day changer suñu gox yu mel nii yu bëri bu projet yooyu pare dangay gis mu am changement bu rëy rëy donc loolu rek jar na ñaan tey promo ville bi mi ngi dugg ñu ngi moderniser ville yi ville bu ne ñu ngi lay defaral ay tali tali yi di ànd ak éclairage public suñu deux suñu tali bi rek ñu ngi koy yaatal di ko def deux fois deux voies ak ay canal yoo xam ne dina mën a jàppale nañu ci ndox mi war a ànd ak éclairage public donc barki démb rek bi muy def déclaration 4 avril dégg ngeen ko mu ne police su Kër Massar bi léegi ñu commencé ko tabax te jox naa leen espace ba pare côté bii bu police boobu taxawee dana mën a sécuriser tout cette zone la parce que ci wetu lycée bi fi njëkkoon nekk terrain boobu ci zone de recasement mooy mooy police foofu lañ ko war a def donc kon yooyu yëpp ak yeneen yoo xam ne tey mënuma ko fi lim ndax jataay bi mayuñu temps bi ku lay defal loolu nag te yore lu mat cent 574 wala lu ko ëpp ci ay commune muy jël projet yu mel noonu di la ko indil wax dëgg yàlla kooku war nga ko ñaanal comme li nga wax ñaanal ko mu gagné premier tour lañ bëgg projet yi mu fi yéen a def yépp mu mën ko eggali mu nekk njariñu askan bi an donc ñi ngi sant ñëpp di di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf jërëjëf monsieur le maire Moustapha Mbeng sëriñ bi dégg na kàddu yi dégg na tamit kàddu yi nga xamante ne si moom nga fesal ci njiitu réew mi wax dëgg yàlla ku ñëw Kër Massar ak wet goo ko mën a jaare boo ñëwee di nga gis ni maire député Moustapha Mbeng am na lu ko màndargale ni bi mu ñëw daaw maire nga woon bu Kër Massar waaye ren jii député maire nga man nag li may dagaan di ko dagaan suñ sang su baax sii mooy nga doon ministre doon député doon maire waaw man lool laa lay ñaanal nga cumuler ko nga nga cumuler yi doon doon doon doon maire Kër Massar doon député ba pare doon ministre ba pare Kër masaar nekk département nga xam ne jëf ji sëriñ bi jëf ndax kat dañ ne nit bu baaxee bu ne baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax sëñ Thierno Diop mee toog moog sëriñ Jili mi ñoo bokk yaayam ñoo bokk ndey ak baay sëñ Thierno Diop ak yaayu sëriñ Jili mi ñoo bokk ndey ak baay kii toog taxaw di sunu di ab dongaam bokk ak sëriñ bi woyu jurub te gis ngeen ni mu jàppe ci liggéey bi kon xam ngeen ni sëriñ Jili fi war a nekk ma nga fa bismillah tafadal maskura إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء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 صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu ci turu njabootu Seydil Xaaji Malick radiyallahu taala ndax suñu sëriñ Maodo bu Seex Alxaaji Abdul Aziz Si barab bi ñu nekk di Tiwaawan Pël si ndigalam nañ fa ñëw waaye bokk na si li mu ñu sant mooy fépp fu ngeen yéegi suma njabootu maam suma njabootu deret tànt fa teewal leen ñu fi moo tax ñu teew ci turu njabootu Seydil Hadji Malick ci bés bi nga xam ne bésu sëriñ jiili la di jiital nuyoo nag ci kilifa gi nga xam ne moo jóge ba barab bu tedd bi ñëw fii ñu koy xool jëm maam borom Touba Xaadimu Rasuul di di ko ñaanal yal na yàlla taas ko ci barke maamam di nuyu Sëriñ Jiili di nuyu imam Fóodi daanaka imam Fóodi bu ñu teeloon yëpp bu ñu teeloon yëpp ne dañuy jël kàddu dañuy ngàntal jël lépp teg ko ci imam Fodé ndax barab bi lii ñu war a wax yépp tey moo fi toogal alxalifa Serigne Mansour Mbaye bon nag ñu ngi lay jéggalu imam Fodé ci kàddu bi ndax fii lépp luñ fi war a wax yaa koy wax suñu teewaay nag mu ngi jaare ci ajaratu Kumba Njaay ma ànd ak imaam Mamad Diop ngir kóllëre gi dox si diggante jigéeni Tiwaawan Pël Kumba Njaay jiite leen kóllëre googu moo waral ñu sampal rasuulullahi tànn fële ca Tiwaawan Pël jiiri xat lool lool lool lool waaye bàyyi ay itteen yépp ñëw toog ànd ak ñun ba waxtoom jot mu yeewe ko li tax ma jàng alquran ndax ba mu ñëwee alquran la waxal alquran la waxal ñi nga xam ne ñoo fa toogoon nekk ay meer te nag maire Moustapha Mbengue nga wax na ko lay ndax li nga xam ne tey mu ngi xew ci àdduna bi li xew ci àdduna bi te ñu am ay alal am ay moyens daanaka moyens yi ñuy yéemoo ci àdduna yëpp di jaar ci seen loxo am lu leen tëj te Sénégal fii yëg sewu fi boo gisee yëg sewu fi mboolem lu wara a merloo yàlla ñu ngi koy gis ci Sénégal waaye du wàcc lan moo tax du wàcc Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak dongo yi ak alquran karim léeg yàlla mer. léeg-léeg mu mer yebal ay malaayika ne leen dem leen ci ñële pomale caaxaan bële waaye bu ñu ñëwee ba tiim tiim gis ay ndongo di jàng alquran ñu dellu si yàlla ñu ne ah am na ay dongo di fay jàng alquran mu ne duma ma wàccee mbugal foo xam ne ñu ngi fay tudd suma tur bon nag daara yee téye Sénégal ñoo aar Sénégal bon nag maire yi war nañoo gestu li nga xam ne mooy daar ji xam nga bu ñu toogee ba seen jiile di jël ay kaar di jël ay tata te lii di ay ndong yi mu leen jàngal alquran agressé doo ko dégg ci daara dégg yàq doo ko dégg ci jàng tarbiya liggéey jàng alquran jàng xasaay kooku warul dugg kaar kooku warul dugg kaar bi te nga gis ñeneen ñoo xam ne seen biro rek la yor nga gis koo xam ne mu ngi sauver Sénégal kooku war nañ koo jàppal damay faral di wax ne lii cant yeeg daara yi ni ko maire Moustapha Mbangue waxa cant yi ak daara yi ak gàmm yi ñoom rek ñoo mën a dajale li dajale parti parti dajale opposants yi dajale ñuy bokkul parti ñuy bokkul daayira ñëpp dajal si benn barab tey benn benn maire bu ko soxloon walla benn parti bu ko soxloon du am benn parti bu taxawoon ne dama bëgg waa PDS ngeen ñëw toog waa PS ngeen ñëw toog waa APR ngir ñëw toog yeneen parti yi toog xam nga ne loolu mënuñu waaye ci lu mel nii rek ngay dajale parti yépp li ñu doon xalaat ci maire di ko wax ci maire mu ñëw am occasion wax ko ak ñooñu ñépp bon ki ko mën a def mooy cant yu mel nii bon nag loo rek wane na ne sëñ bi mairie bi nañ la jàppale te am naa yaakaar ci sa barke maam comme kàddu gi jóge na fi yaakaar naa waxuma benn waruwaay waaye ay waruwaay di nga ko am incha allah yàlla la ko yàlla defal bon nag di nuyu rek et eh, monsieur le ndax moom xam nañu ay cosaanam xam nañu moom taalibe la ay mbokkam ay kilifa diine lañu bon nag si loo rek ñu lay ñaan ñaanal yàlla li nga sumba si Kër Massar yàlla na ko yàlla dimbali bi nga mottali waaw di sant sëriñ jiili di ko ñaanal yàlla nit ku wàccee boppam nit ku am yëg-yëg la ndax ak tabassum ala wacci aqiqa sadaqa te sëñ jili boo ko séenee rek da koy bëgg da am cofeel fi moom yàlla xam na ne barki dem bii Kumba Njaay ñëwee mu ngi fekk ma tëdd si lal ma ne ko sëñ jili bu ma bu ma doon raam sax danaa ñëw ba teew si bésam bi waaye gis nga mag ñi seen tànk fiihi shifaun li kulli bi ma duggee tànte bi rek mel na ni man yëgatuma dara pour ngeen xam ne njaboot Seydil Hadji Malick njobootu maam borom Touba ñoo bokk lépp man mi wax ak yéen aw awma mbokku tiijaan kayen laa juddoo ca gannaaw Mbàkke sëriñ ka mooy taalibe sëriñ ma Madina mooy jëwrinam man ñu sarax ma alaji abdu oh. moo tax gis nga gàmmu gi sëñ jiiri gis na ko waaw sëñ jiiri gis na ko li fa nekkoon suñu sant Mbàkke rek ëpp nañu fukk parce que xam nañu ne ñun ñoo bokk lépp bon nag ngeen baal ma kàddu gi mu ngi bëgg a bare lii rek laa si doon wax ñu ngi ñaan képp ko ronu baas bi si barki Serigne Touba loo fi yéene yàlla nañ ko yàlla def wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf kàddu yi am na solo